borom sareet yi dañoo xam ne sii ñoom ci màggal gi lan xam nga nit boo nekkee ci boo nekkee ci dëkk muy dëkk boo xam dëkk bu ràññeeku la nga indi fa sa daamar boo fa dee liggéey yawit yow it liñ lay njëkk a sas mooy nanga def ndànk doomu aadama yi nga war a yóbbu boo leen dee gaañ wala nga leen i gàllankoor jëriñatul dara ci màggal gi loolu toog ba a ñëw sax da koy gën man mii di wax ak yow sareet laa yor nii sama sareet bii bii ma toog nii mooy sama sareet mais bu ma sañoon daal sama mbokki borom sareet yi ñu def ndànk te xam ne dara jeexut. waaw fii arrêt yi bari na arrêt départ na fii jëm neew ga marché Ocass ba neew ga am na marché Ocass ba garage Daaru Musti am na marché Ocass ba corniche su sëñ Seex am na borom sareet bi nag yaay suwaa moom foo bëgg a daw ndax korniis yi bari na ci dëkk bi arrêt yi bari na ci dëkk bi te nit ñi bu ñëwee ci dëkk bi xajuñu ci dëkk bi ñii dinañ dugg oto ñii dinañ dugg sareet ñii dinañ jël ay taxi ñii dinañ jël ay jakarta ndax borom sareet yi dañ cee gën a laabiir ñoom it dañ cee gën a laabiir ndax fi ne boo demee ci borom taxi yi kenn nit ku ne liñ lay laaj tey jii bu dee saret mën nga ko cee jël spécial yaak sa njaboot ngeen yegg ci jàmm ak salaam moo tax ñu nekk fi pour di leen jàppale nag noo bari na bari na ren ndax fi mu tombee la daa tombeek nawet daa tombeek wax seet xaw a sori ci biir nawet bi waaye mbedd yi mbedd yi xawoon a doy waar yëpp waa Touba ca kanam jàppale nan nu ce buñ ko jëree ngacc ngacc nañ ko bu jëree sëkk sëkk nañ ko loolu moom seen taxawaay moom mbox dëgg yàlla dañ leen ciy gën a sant mbedd yi kaw tëli yi am na ci tëli yoo xam ne si avant màggal gi defaraat nañ ko ba mu baax lu tel ni jumaa yi tuubaay ji ak corniche su sëñ Seex foofu moo ci nekkoon route nationale bi nga xay moo gënoon a garaaw mais yàlla suñ borom defar na ba defar nañ ko ba ba ubbi nañ yoon yi nit ñaa ngi ci jaar ci jàmm ak salaam waaw jërëjëf waay sëñ bi kontaan nañ trop. yàlla na yàlla taxawal yàggaay bi. ñi ngi sant Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñaanal Mbacké Fall te yàgg te wér lool te loolu da ngaa si am di Mourou Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall te itam moom daal dañuy doole góorgóorlu tey jëfi ndigal li tey bàyyi tereel moom dañu leen di yóbbu ci jaam ak salaam wàcc leen jaam ak salaam yar ak i teggin ndax képp ku ne ci dëkk bi da ngaa war a am yar ak i teggin moom moom la waroon dëkk bi woote waaw ñun gën doole góorgóorlu ci ndigal li sëñ bi bëgg daal waaw loolu daal a war a a la waaw voilà ci 100 francs la waaw non wax wax dëgg yàlla defar nañ Touba Ca Kanam sëkk nañ commencé la di ñaan ñu gën a yàgg gën a wér rek ah, waaw moom daal kenn ku ne da ngay maslaa ak ñoom yeb leen ci jaam wàcc leen ci jaam nga mën a dem jaam ak salaam waaw taxawaay màggal gi waaye ñu ngi nii rek di wàccaay màggal gi di ñaan dugg si bismillahi rahmaani rahim barki Cheikh Ibrahima Fall lam waaw di ñaax suñu mbokk borom sa xam ne saa borom dogal nañ ñu fekk si ñu xam ñu war may xam dëkk bi ñi nga xam ne saa borom dogal nañu ndaw yi nga xam ne ay ndaw yi dëkk bi la ne di fu ñu jàlloon nañ jaar foofu noonu ñoo xam ne suñu jàmm rek lañ du bëggal kenn ku ci nekk ñëw na maa jàpp na ngaa ñëw pour defar ñëwoo pour yàq ñi nga xam ne saa borom dogal nag ñu ni fi ay mbokki taalibe ay ci dawal saret kenn ku ci nekk ak ku mën di doon damaa jàpp responsabilité nga fi nga nekk kon nag fa nga nekk boo nekk responsabilité la nga nekk rek te muy dëgg te ngay liggéey waroo ci mën a kenn te waroo mën a yàqal kenn nit boo yore sa alal nag yaakaar naa war nga bëgg na la ki bala koy fonkal ne war nga ko mën a fonkal sa alal waaw. lan mooy seen liggéey exactement yéen borom nag suñu liggéey nag am na ci ñoo xam ne ay ay ay man nag karo laay waaye bu karo bi taxawee damay yor sama sareet di ci liggéey di xam ne mbir mi kenn ku ci nekk loo yëngu rek te muy dëgg saa borom dana ci fekk si dimbale ci anam mu mën a doone ci anam mu mën a doone waaye yóbbu bagage ak ñi période bi ñu toll moom borom sareet ñi nga xam ne ñu man foofu ñoom pression yi ñoom ba nungul ko seen bopp waaye peut bu ñu toll ne koo ci bëgg a teg pression day metti ndax comme dana dëkk ñoom dana joxante war ma ngir sëñ Tuubaa comme war ma jël la borom dëkk bëgg nañ ko defaloon rek ngir sëñ Tuubaa waaw waaw yenn saa dana am client jafe-jafe nag waaye yenn saa ci client lay doon ndax da ngay gis boo xam ne day yor bagage boo xam ne a fay euh, téeméer wala ci war ci war caa mën a fay dem jël taxi fay ko téeméer boo yoree bagage bu ëllëgee ñëw boo ko te loolu xel du ko nangu waaw maa jàpp ko xasee jëlal buret fay ko 300 boo ñëwee bu la borom saret boo ko tegalee buret bu mu ñëw boo ko tegee saret bëgg a fay 100 francs rek loolu noonu jafe-jafe day daal di foofa te loolu dama jàpp ñu nag client yi waruñoo mën a réeroo comme dama bëgg sa ñaar fukk góor maa yow dem ci rek on war a continuer am ci leneen loo xam ne koy bëgg ci yow loolu cent franc yi waaw bis bi saa nag moom dana baax bu dul màggal gi nii moom mën naan xëy am ay sept nag moom dana taw bu dul màggal gi duñ bokk ndax màggal gi ku ne ñëw waaw nanu bàyyi xel ne ku ne ñëw ndax suñu tubaab moo waxoon ne màggal gi moom buñ ko doomaare mi màggalut ñu doomaare junne yi ñooy wàcc màggal ko kon ñi nga ne saa noonu nattu ñu koy màggal kon na yelloo barke maam sare a jël mu yóbbu la waaw bëri na client yoo xam moom buñ ñëwee duñ xam duñ fi xam léegi loolu boo dikkee te xamoo fi xamoo serre bi nga dugg tamit boo wàcc sa bagage tamit day yaay per ñun ñu fi dëkk nag boo fàtte sa bagage dañ ko teeñ si arrêt bi heure bu heure boo mën ta ñëw heure bu wala nga dégg ko si rajo bi bu nga ne ah sa bi fii ah, bërëb sàngam lañ ko fore mi ngi si arrêt sàngam boo dikkee ñu jox la ko waaye seer yi nga fi dégg boo dikkee fàtte sa bagage daanaka da nga koy ñàkk rek am ngeen beneen jafe-jafe muy ci daggaloo 10000 francs bi waaw 10000 francs bi moom tëgguñu ko fenn moom yow nga dikk loo xam loolu mun da yéenwul maanaa yow di tey sax laa muñal ba suba nga mën a am 10 000 doo dagge waaye du loolu duñ ko def 10 000 10 000 pour maire maire bi si maire bi te kenn xamul fu mu jëm instant yi dëkk bi fépp am ndox la foo jaar fépp am ndox la xool xool tëli nu mel am ndox kese la ndox kese la ah instant yi xaw naa wàññeeku ndax fan yi démb ak tey tawut waaw loolu loolu moo ñu métti ak 10 000 fa di lépp loolu moo ñu métti. gis seen bopp ci liggéey bi. waaw ñu ngi si gis bu ñu si gis suñu baax baax moom ñu si gis suñu baax baax ñu instant yii 100 francs lañ yem nii baal fii ak boo xam mën naa bañ a si kanamee xam naa ñu yokk di pa gars yi dañ yokk paas yi 200 waaw loolu laa bëggoon a sànni si ay kàddu